wa axbarani xibaar na ma axi sama mbokk wa cheikh yi tey sama sëriñ muxtaar bintaloo sëñ muxtaar bintaloo ibnu a cheikh ibrahima di doomi cheikh ibrahima sayxi ñomre loo kay sëriñu ñomre loo sëñ Maxtaar Bintaloo dafa bokkoon ci dongay sëriñ Touba yi ko jege woon bokkoon ci tànneef yi nga xam ne sëriñ bi moo leen tànnaloon boppam ngir lenn ci ay mbiri boppam yi nga xam ne mbiri boppam yu mu jagoon la sëñ Maxtaar Bintaloo nag nekkoon boroom xam-xam nekkoon waykat eh, yàlla dogal na sax lu bari ci ay ci ndonoom ci wàll googu dafa sànq waaye ci borom xam-xam yu mag yi ci yoonu murid la bokkoon bokkoon ci taalibe yu mag yi sëñ Moudou Lamine Diop nag nee na sama mbokk moom yi di sëriñ sama sëriñ di sëriñ Muxtaar Bintaloo moo ma nettali ne ma annahu naka moom samia dégg na mina cheikh ci sëriñ ba المترجم كدي كوني وقتانا اي جار جار لهو نيال ما لو خامني يؤيد دنا دغال ذلك لول نينا سي مختار بنت لو نينا كو دغنا بيس تي سيرين بي مو واخ لو خامني داي دغرل ني موم اي مامام اي سيتي يونت بي لاي خالا مو واخ موم سيرين بي ني كنت نيك موم سيرين موم سيرين مختار بنت لو مو واخ ني كنت نكون يوما بس عنده فشيخ الخديب نتحدث ني وقتان حتى ذكرنا بني تدو قبيلة أجير من البياضين تين ني تنصب نون ديفنا أسكنالي نون ديفنا لين أسكنالي إلى الشرف جميلين جي ستو جينين جي فخالة مدال دي وخ لين يلم سرين توبا دال دي مي وخ نما أما تعلم خنا خمني anna ulaika naka ñooñee kat ikhwanuna ñoy suñu mbokk fa sahha dal di wér lanaa ñeel ñu bi dalika ci lolu sharafuhum seenug sëtu ci yoonte bi señ maxtaar biddaloo nee na maanaam sëñ Modou Lamine Diop nee na sëñ maxtaar da ko wax ne tok na mak señ Tuubaa bis ñuy waxtaan ci nit ñu wex ñi mi ngi ci jublu rek naari gànnaar ba ag ci genn giir goo xam ne ñoom dañ leen di askanale ci sëtu ci yonent bi sëriñ bi daal di ne ko xanaa xamoo ne ñooñu ñooy suñuy mbokk nee na loole nag ñu daal di cay dégge xamee ca ne kon moom sëriñ bi aw askanam ñu ngi sëtoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xultu wax naa ni wa sharafum seenug sëtu ci yonent bi law lam yusma doonte déggeefu ko ولم يقل توخيفك فشاهد الحالي أجي سير مرمرك عدل أجي مانولا فيهم تنيوم يدلنا لنا نتكتل عليه تموم من الأخ من أخلاق تأجيكو مستعذب مستعذبة يلي ينيخلو من كرمي تتدنغا شيبا غوهم جاخسيس نكوك بين شراح صدر تأبكو بدنو wa xilmin akuk lewet maa shajaatin ànd akuk njàmbaar wa iqdaamin akuk ñaaj ilal xayri jëm ci aw yiw wal anafati akuk jombulu min danaayal axlaaqi ci way suufee jikko yi ilaa diyaanatin jëm ci diine saadixatin ju aji dëgg sëñ Mudu Lamin nee na man de maa ngi wax ne ñooñu seenu sëtu ci yonent su fekkonte ne kenn déggu ko fenn kenn waxu ko xanaa seen melo lim wane rek loolu mën na koo dëggal liñ liñ xam ci ñoom ci ay jikko yu rafet liñ xam ci ñoom ci ak tab ñu yor nangu ko joxe ngir jëmmi yàlla liñ xam ci ñoom ci ubbikub dënd mën a muñ liñ xam ci ñoom ci lewet liñ xam ci ñoom ci njàmbaar ak nangu gi nangoo song aw yiw ak jomblu giñ jomblu jikko yu suufe yi ak diine ju dëggu ji nekk ci ñoom nee na loolu képp mën naa tegtale ne ñoom ay sëti yonent lañ doonte kenn dégg kenn wax ko wala kenn déggu wa amma ummuhu ndaal ndayam nag fa jaaratullahi mooy jaaratullahi mariam mariama busub bintu muhammadin ibni muhammadin ibni hamad ibni aliyin al busubi nee na soxna jaaratullahi mariam la waajur mu jigéen tudd di doomi muhammadu buso muhammadu buso moomu di doomi muhammad محمد دي دومي حماد حماد دي دومي علي يوسف وهؤلاء تنيله شرفهم سينو ساتو تي يوننت صحيح اجي وير لا نانا نيوم سينو ساتو تي يوننت بي لو وير لا ونسبهم سينو اسكان مثبت لو ني سخال لا الى الامام جيم تي امام با الحسن تا موي حسن ابن علي كاي دومي علي ابن ابن ابي طالب كاي دومي ابي طالب كرم يالنا ترى الله يالا وجهه جمم نانا نيوم سينو اسكان دا فا صاح باغ الامام الحسن ميغا خامن موي دومي علي بن ابي طالب مو امكو اك فاطمه بنت رسول صلى الله عليه وسلم فالشيخ سيرين توبا شريف ستوب يونتي بلا امان تي نداي وابن اتي اخبرني خبارنا سيدنا لامين نينا خبارنا بعض ابناء عمي lenn ci sama doomi bàyyi tax waxwata moom xabiirun aji dañ kumpa la bi ardi fuuta ci suufus fuuta bi àndaxoo ci naka moom saara doxoon na min xariyati bogge bàyyi ci dëkk bu ñuy wax bogge ilaa mbumba jëm ci dëkk bu ñuy wax mbumba aasimatin ab capital la fii laaw aasimatun ab capital la fii laaw ci dëkk bu ñuy wax laaw waa marra mu romb bi atlaalin ci ay gent xiila waxees lahoo ñeel ko inna haadihi naka gent yile aadaaru xural mbakki yii na mooy jeexiti dëkki ñi san ñi san ñi santoon mbàkki sëñ mut laamin nee na lenn ci samay doomi bàyyi koo xam ne kii ku xam àllu fuuta bi la nettali na ma ne dafa am bis mu bàyyi ko ci dëkk bu ñuy wax bogge jëm mbumba mbumba nag ab teeru la ci laaw nee na mu romb ay gent ñu ne ko gent yi kat ñi sant Mbàkke fi lañuy ñu dëkkoon wa axbara nii xibaar na ma it aaxaru keneen min ahli bahbaha ci waa bahba annal mbàkki yii na naka ñi sant mbàkke ab naa amihim ñooy seen doomi bàyyi tax nee na ci waa bah bah ba bah noonu lay dikkee nee na am na ci ko ko wax ne ko waa Mbàkke ñooy seen ñooy seeni doomi bàyyi wa innama ubdila naka woteef na rek ha ubba ha gi ci bax gi bil kaaf ñu wotee ko kaaf fil wolof yi ne ci wolof yi wa hada lii nag daifal aji doye di la indi fi man suñ laa mi nee am na keneen ku ma nettali koo xam ne mi ngi bokk ci waa bax bax ne ko waa Mbàkke yi ñooy sunuy doomi bàyyi dal ne ko ñoom nag dañ wolof ño ñoo ñoo wottee gi ci ba def ko kaf muy mbacke waye neena na nak mom du wax ju deugal fi man wax ju wax wax la jo xam dal wax ju wax ju wax ju doyo de la fi man wal masnun lañu ñu jort daal mooy annahu naka mbacke lakhabun aw sant la rek qadimun wu yag ka al khabil aajimi niki ki santi làkkat yi fataadada deugere dëgëra dëgëralante na alxawlaani ñaari wax ya waa alayhima te nekk na ci ñoom avaaru sidqi jeexiti dëggal ga nee na boo xoolee daal lële nga xam ne moom la mbokk mu lay wax ci bi mu bàyyi ko bogge jëm mbumba romb ay gent ñu wax ko ca loolu li ñu ko ca wax nee na loolu boo ko seetee day mel ne moo gën a dëgër wax ju mujj ji te it moom moo gën a yanu maanaam mooy mbàkke kon sant la wu yàgg woo xam ne sant la bu yàgg comme sant yi ci des wa amal mbusu bi yu ñi sant mbusu nak fa xiila waxees na ni maskanuhum seen way fi fuuta mi ngi fuuta xariyatu golere dëkk bu ñuy wax golere fa kullu hadhihi al amakin kep ci yele baram nak mutaqaribatu aji jegente la وعلى الأماكن تنكنا تبربيا والأقوى لأغوخيا آذار صدق جيخي تدق تدل يدي تكتلي على شرف النصبين تي ستو تي يونن تك نياري أسكن يب نينا بولين جسان تبسو موم نيني كسانو غلر كفوتا برب يمي تدنك نينا برب يجيغيلا برب يمي تدو دي وحنا موي برب يجيغي ني سانتون باكي أك barab yi muy tudd di wax ne mooy cosaanu ñi sant Bousso nee na barab la yoo xam ne sorewul te bu ñu xoolee barab yi ak wax yi ñu ciy wax daañ ci dégg ay jeexit yoo xam ne day tegtale ne ñoom ñëpp ñu sëtu lañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam